الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu ci sunu programme bi ñu dippee kàddu gu sell gi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu sunu mbokk yi nga xam ne ñi ngi ñuy faral di ñu déglu saa su nekk di nuyu ñépp ñi nga xam ne ñi ngi yeewoo fii ci biir Sénégal di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mi nga xam ne moo ñu may ñu tal ko ba teew fii ubbi téere bu sell bi nga xam ne fi la yàlla sunu boroom wone boppam te fi la ñuy jàngale itam fan lañu war a teg sunu tànk ak ci yan anam lañ ko war a jaamoo kon ñuy sant yàlla sunu boroom bi mu ñu mayee ñu tal ko ba mun a ubbi téereem bu sell bi jàng ci mu doon yiw mu doon yokkute ci képp koo xam ne yaa ngi koy déglu yàlla nañu yàlla yiir ak mbaaxam ak ak barkeem ak xéewalam may ñaanal ñépp ñi nga xam ne nag ñi ngi déglu sunu émission gi kàddu gu sell gi damay waxtaanaat tey jii ci li nga xam ne moom laa tàmbali woon fan yële mu jëm ci loolu nga xam ne tuddee nañ ko ci téere bu sell bi bisub yonent yàlla nooyin ak bisub loot ma leen doon wax fii ne yonent yàlla nooyin ñun ñépp a ko xam wante am na ñoo xam ne réeroo nañu kan moo doon luut luut nag moom moo doon jarbaatu Ibrahima boobu nga xam ne bi yàlla sunu boroom waxeek Ibrahima ne ko léegi kat dama bëgg nga gàddaay génn fi nga nekk sori askan bi nga juddoo ngir ma wan la sama bopp dafa jël luut moomu ne ko kaay ànd ak man moo doon jarbaatam Ibrahima jël soxnaam Saara jël jarbaatam boobu di luut ñu ànd wante yàlla sunu boroom dañuy wax ci téereem bu sell bi ne am na jamono ñoo xam ne ñoom ñaar neexootuñu walla bokk lóot ci boppam neexootul woon ak nijaayam jooju doon Ibrahima léegi mu mujj ko won ginnaaw dem ci beneen dëkk nekk fa sori Ibrahima loolu nag li ko waraloon mooy seeni sàmm dañ doon faral di jote Ibrahima nijaay ji nekkoon nit koo xam ne ku feesoon ak yërmande la nekkoon nit koo xam ne ku daloon la nekkoon dëgg-dëgg nitug yàlla Ibrahima bu ñu fàtte ne yàlla sunu boroom da ko doon woowee sama xarit Ibrahima nag ne jarbaatam boobu doon lóot ne ko lu ñaaw warul am sunu diggante te comme da nga am jur ma am jur te sunuy sàmm ngi jote saa su nekk léegi dama lay bàyyi nga tànn foo tànn rek boo fa jubloo ma jël wàll gi ci des man jublu fa boo jaaree nii ma jaar na le wante bàyyi naa la nga tànn mu ne ko xoolal dëkk bi ni mu rëyee xoolal bërëb bi nga ci bëgg nga tànn boo tànnee ba pare man sa nijaay Ibrahima ma jël li ci des noonu la Luut def ba mujj sori nijaayam jooju doon Ibrahima wante mbokk yi ma dellu si ci li nga xam ne nag moo doon saar yi nga xam ne moo laloon sunu waxtaan gële paase te di lalaat sunu waxtaanu tey wi ma jàng ko ci injiil ci xaaj bi ñu jaglee Luk ci aaya fukk ak juróom-ñaar ci saar ñaar fukk ak juróom-benn ba fanweer ak juróom-ñaar lii la yàlla sunu boroom wax ci téere bu sell bi mi ngi naan la xewoon ca bésu nooyin dana xewaat ci bésu doomu nit ki nit ñaa ngi doon lekk ak di naan di jël jabar ak sëy ba bés ba nooyin duggee ca gaal ga noonu mbënd ma ñëw rey leen ñoom ñépp dina mel itam ne li xewoon ca bésu luut nit ñaa ngi doon lekk ak di naan di jënd ak di jaay di ji ak di tabax waaye bés ba lóot génnee sodom yàlla tawloo na safara ak tamaraax rey leen ñoom ñépp noonu lay mel ca bés bu doomu nit ki feeñee ca bés boobu ku nekkoon ca kaw kër ga te ay bagaasam nekk ci biir bu mu wàcc jëli leen te it ku nekk ca tool ya bu mu ñibbi fàttaliku leen jabaru luut ku wuta rawale sa bakkan dinga ko ñàkk waaye ku ko ñàkk di nga dund maa ngi leen koy wax ca jamono jooju ñaar dinañu bokk tëdd guddi dees nañu yóbbu kenn ki bàyyi fa ka ca des ñaari jigéen dinañu walandoo dees nañu yóbbu kenn ki bàyyi ka ca des taalibe yi ne yeesu fu loolu di xewee borom bi yeesu tontu leen ne fa medd ba nekk la tan yi di daje kon yàlla sunu borom di ñuy wax ci mbir moo xam ne bu am solo la bu nar a xew mu jug jamono muy dellu si sang bu tedd bi di seydina isa almasi bi yeesu christ yàlla sunu borom di ñu bëreel na jëmm ju sell jooju dana dellu siwaat àdduna wante bés bu muy dellu si àdduna dana bett doomu aadama ndax bés boobu itam mooy bésu layoo bés boobu mooy bés bi nga xam ne yàlla sunu borom dana won doomu aadama boppam ndaxte ba léegi yàlla sunu borom a ngi ñuy muñal te mi ngi ñuy wax ci téere bu sell bi nañu bu dee mi ngi ñuy munal ba léegi dafa fekk ne rek daf ñu bëgg bëgg doomu aadama tuub ay bàkkaaram dellu siwaat ci ki nga xam ne moo ko sàkk te ñuy ay jaamam muy yàlla sunu borom wante fii nag bés boobu nga xam ne ci jëmm ju sell ji ci lay dellu siwaat di seydina isa almasi bi yeesu kirist yàlla sunu boroom mi ngi koy méngaleeg ñaari bés bi ci njëkk mooy bésu yonent yàlla nooyin bi ci tegu mooy bésu luut mi doon jarbaatu ibrahima émission bale passé ma wax leen li nga xam ne moom lañu yàlla sunu boroom wax ci téere bu sell bi mu xewoon ci jamono yi yonentam boobu doon nooyin yàlla sunu borom dafa xool àdduna natt àdduna xeyma àdduna gis ne lu bon jéggi na dayoo toll na foo xam ne ca dëgg-dëgg jamono jooju lu bon toll na foo xam ne jéggi na dayoo yàlla sunu borom ne nag dogu naa ne kat danaa won doomu aadama sama bopp danaa ko won ne ko maa ko sàkk maa yore ruwam bu nooyee man la bu nokkee man la yàlla sunu borom wàccee ab mbënd moo xam ne ñëw na ci biir àdduna faat lépp li nga xam ne mi ngi doon dund te amoon bakkan muy nit muy liy naaw muy liy raam amul dara loo xam ne yàlla sunu borom bàyyi na ko woon ci kaw suuf bi ñu yegsee foofu nag yàlla sunu borom ne man kat kii nga xam ne mooy nooyin danaa ko musal ci mbugal gi nga xam ne dana yegsi ci biir àdduna moo waraloon mu ne ko na nga yatt ab gaal goo xam ne da ngay dugg ci biir yow ak sa njaboot ba pare nag jël rabu àll yi nekk góor ak jigéen rawale leen dugal leen ci biir gaal gi kon mbokk auditeurs yi ñu dagg foofu waxtaan wi déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaaru xaaju waxtaan wi jërëjëf mbokki auditeurs yi yàlla sunu borom di joxewaat beneen misaal muy li mu tuddee bésu luut bésu luut itam mooy jamono ji nga xam ne yàlla sunu borom wàccee na safara ak tamaraax ci ñaari dëkk yu ñu tuddoo woon sodom ak gomor te luut dëkkoon foofu yàlla sunu borom xool ñaari diiwaan yooyu ak ña fa nekk ak melokaan bi ñu meloon ak jukko yi ñu amoon ak yiñ doon def yàlla sunu borom ne ñii kat xajatuma ak ñoom li ñuy def jéggi na dayoo danaa leen wan sama bopp yàlla sunu borom nag musal luut ak ñaari doomam yu jigéen wante soxnaam soosu nga xam ne nag moom xolam a ngi woon ci ñaari dëkk yooyu dafa mujj faatu yàlla sunu borom bett waa sodom ak gomor bett leen wàccee seen kaw safara boom leen ñoom ñépp luut mucc ñaari doomam yu jigéen ñooñu mucc yàlla sunu borom wone foofu boppam di ñu jàngal ci ñaari misaal yooyu mu tuddee bésu nooyin ak bésu lóot ne kat am na bés boo xam ne dana layoog doomu aadama te bés boobu ñun mbindeef yi mu sàkk danañ xam ne ci dëgg-dëgg moom rek moo nekk moom rek moo am kàttan te li mu dogal kesey am mu ñuy fàttali foofu ne jamono ju jëmm ju sell jooju di seydina isaa almasi bi yeesu kirist di dellu si jamono jooju mooy jamono ji nga xam ne yàlla sunu borom dana won doomu aadama boppam wante mi tam mi ñuy jàngal foofu ne nit ñooñu nga xam ne dund nañu jamono jooju mu tuddee jamono nooyin ak jamono luut moo doon ay nit ñoo xam ne demoon nañu ba beew demoon nañu ba fàtte ne kat bés yàlla sunu borom dana leen won boppam nekkoon nañu ay nit ñoo xam ne demoon nañu ba naago di dund dund goo xam ne yaakaaroon nañu duñu faatu ba faw dund goo xam ne dem nañu ba génnee yàlla ci seen biir dem nañ ba nga xam ne topp nañu seen bakkan dem nañ ba nga xam ne lépp li yàlla sunu borom ne kat lii bëgguma ko ñoom dogu nañu woon ne kat loolu la ñuy def kon ñi ngi doon dëkk yàlla sunu borom te ku dëkk yàlla sunu borom ah da nga ko gis képp koo xam ne jóg nga dogu ne kat man li ma neex lay def yàlla nee na pareel ndaxte bis danaa taxaw ci sa kanam te danga layoog man yàlla sunu borom nag ne bés boobu day bette bés bi nga xam ne yàlla sunu borom danañu woon boppam mi ngi ñuy wax ci téere bu sell bi sang bu tedd bi di seydinaa isaa almasi bi yeesu kirist wax ne bés boobu dana doon bés boo xam ne day bette ndaxte bi nooyin duggee ci gaal gi ba taw bi tàmbali ci la nit ñi kat xel yi dellu si ñu ne ah kon de li waaju doon wax nekk nekk na ndaxte mbokk yi ñuy déglu maa ngi leen di wax ne bërëb boobu nga xam ne yàlla sunu borom wàccee na fa mbënd mi nekk na bërëb boo xam ne ay téeméeri téeméeri téeméeri at ndox wàccu fa taw amu fa yàlla sunu borom bett leen bés ba nga xam ne dogal na ko bés ba nga xam ne soob na ko mu ne bés bi danaa wàccee mbugal ci seen kaw waa askanu waa jamono yi luut itam yàlla sunu borom bett leen bés ba nga xam ne moom la dogal bés ba nga xam ne moom la danaa wane sama bopp bés boobu mu yegsee kenn mënul taxaw kenn mënul jóg nekkat bés boobu du nekk yàlla sunu borom képp a nekk te képp koo xam ne yaa ngi taxaw képp koo xam ne yaa ngi koy dummóoyu képp koo xam ne yaa ngi koy dëkk ci kaw jukko yi ngay yore ci kaw wax yi ngay wax ci kaw jëf yu ñaaw yi ngay jëf yàlla sunu borom nee na bés da nga dajeeg man te bu boobaa da nga xam maay kan moo tax jamonoy luut ak jamonoy nooyin nit ñi daw nañu di wut fu ñuy làqu mënuñu ko am dañuy wax ne jamonoy nooyin bi mbëdd mi tàmbalee dañu xalaat ne kat bu ñu yéegee ci kaw tund yi danañ rëcc yàlla sunu borom wàccee ndox mi di wàccee ndox mi di wàccee ndox mi di wàccee ndox mi ba ndox mi nekk ci kaw yegg ci kaw asamaan amul benn tund bu nekkoon ci biir àdduna ak loo rëy rëy rëy te ndox mi mëddu la yàlla sunu borom far lépp fii nag mi ngi ñuy wax ne bis bi dana bette bis bi dana bette nee na ñaar ñoo xam ne nekk nañu kenn ki dana rëcc ñu musal ko kenn ki ñu yóbbu ko joxe na sax misaal bu doy waar nee na ñaar danañ bokk tëdd guddi maanaam borom kër ak soxnaam nee na ñu jël kenn ki bàyyi ka ca des ndaxte kenn ki dafa nekkaloon yàlla ka ca des nekkalul woon yàlla sunu borom yàlla nag nee na ki ma nekkal danaa ko jël mu mucc ki nga xam ne nag nekkalu ma danaa ko far kooku danaa ko digaaleeg moom kooku danaa ko mbugal bu nit naagoo bu doomu aadama naagoo ba topp bakkanam bu doomu aadama naagoo ba yaakaar ne kat yàlla amatul kon mi ngi nax boppam bu doomu aadama naagoo ba yaakaar ne mën na def lépp li mu bëgg te dara du ko ci fekk kon mi ngi nax boppam ndaxte ñun ay jaam lañu te dafa am ki ñu bind te ki ñu bind daf ñu won yoon ne ñu yoon bi ca laa bëgg ngeen jaar seydina isa almasi bi yeesu christ di jàngal doomu aadama yi foofu di jàngal ay taalibeem yàlla sunu boroom waxloo ko mu naan ay taalibeem farlu leen farlu leen farlu leen ndaxte bés boo xamul kañ lay yegsi bés boobu danga koy waajal bés bu nekk loolu di tekki ne doomu aadama war na di nekkal yàlla saa su nekk loolu di tekki ne doomu aadama war na bàyyi xelam ci yàlla saa su nekk loolu di tekki ne fo baaxul loolu di tekki ne caaxaan baaxul loolu di tekki ne doomu aadama war na farlu saa su nekk di bàyyi xelam ci yàlla sunu boroom mel ne bésu pénc ba bésu layoo suba la loo ne nag suba la danga koy pare danga koy waajal te yàlla sunu boroom mi ngi ñuy jàpp mi ngi ñuy soññ ngir ñuy fagarlu ngir ñuy farlu ba nga xam ne bés boobu duñu bett damay faral di dégg nit ñu baax ñi di wax naan mission gu doomu aadama fii ci suuf mooy jaamu yàlla mooy jaamu yàlla damay dégg nit ñu baax ñi di ko wax yàlla sunu borom di ñu ko wax ci téereem bu sell bi di ñu wax ne li nga xam ne moom la namm ci ñun fii ci suuf mooy ñu koy jaamu lépp li nga xam ne nag daf ci tegu loolu daf ci yokk rek wante bi jiitu mooy di jaamu yàlla sa borom bés bu nekk ngay bàyyi xel ci yàlla sa borom bés bu nekk ngay wéetal yàlla sa borom bés bu nekk sa ragal yàlla di gën a yokk lépp looy def lépp looy wax lépp looy yëngatu ngay bàyyi xel yàlla sa boroom ndaxte bés bi muy foñe boppam bés boobu dalay bett bés bi mu lay woo ci boppam bés boobu itam dalay bett kon mbokk yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy dugg ci ñetteelu xaaju waxtaan wi ñuy tëjee sunu waxtaanu tey bi
عايش في بالي قدومك يا غالي تبدل حالي ايام وليالي عايش في بالي قدومك يا غالي تبدل حالي حبيت حبيت اللي يستاهل على يسوع انا من نازل حبيت حبيت اللي يستاهل على يسوع kon jërëjëf mbokk yi ñuy déglu yàlla sunu boroom wax ak nooyin wax ak moom ci jamono yoo xam ne doomu aadama yi def nañ li ñu bëgg mbindeef yi nga xam ne moom moo leen bindoon yàlla sunu boroom topp li leen neex yàlla sunu boroom ne leen danaa leen won sama bopp ma leen di fàttali ne nooyin mucc na ndaxte yàlla sunu boroom nee na ko kat nooyin ci anam bii ngay jaar ngir nga mën a mucc yàlla sunu boroom ne ko nooyin yow bokk nga ci ñi nga xam ne ragal nga ma déggal nga ma kon yow naw naa la yow ak sa njaboot da ngeen rëcc ci mbugal gi nga xam ne maa ngi koy wàccee ci biir àdduna wante mbugal gi nag ngir nga mucc ci dangay yett ab gaal dugg ci biir yow ak sa njaboot mala bu nekk xeetu mala bu nekk nga jël ci bu góor ak bu jigéen bi taw bi ñëwee bi mbënd gi ñëwee nooyin mucc ci loolu yàlla sunu borom moom mooy ki nga xam ne moom moo indi woon pexe bi nga xam ne ci la nooyin mënoon sukkandiku ngir mën a mucc ci bés boobu nga xam ne moo doon bésu layoo moo doon bésu mbëgal gi mooy bis bi nga xam ne yàlla sunu borom wone na woon boppam nooyin nekkoon koo xam ne wóolu na woon yàlla gëmoon na yàlla déggaloon na yàlla ku wóolu woon yàlla la moo tax bi yàlla sunu borom waxeeg moom mu def ko ni mu ko ko waxee woon ci anam yi mu ko bëggee woon déggal ko wóolu ko bari na nit ñi nga xam ne dañuy wax ne gëm nañu yàlla wante ñi ngi indi seeni pexe ngir mucc ñi ngi yaakaar ne bu ñu defee lii ak lii danañ mucc yàlla sunu borom ne man kat man maay indi pexe bi nga xamee ne ci ngeen mën a jaar ba texe ba mucc loolu du li nga xam ne ñun ñoo koy sàkkal sunu bopp wante moom mi nga xam ne moom moo mën a muccal nit moom mi nga xam ne ku mën a texe nga texe nga kon anam yi mu ko bëggee ci anam yooyu rek lañ ko mën a amee moo tax mu ne nooyin yattal ab gaal nooyin wóolu ko neewu ko aji sax ji gaal lu tax ma koy yatt ci diiwaan bi nga xam ne dëkk yi nga xam ne musul taw déedéet donte foofu dafa wowoon mu déggal ki nga xam ne mooy aji sax ji déggal yàlla sunu borom defee ko ni mu ko bëggee woon moo tax ba mbënd ga ñëwee nooyin dugg ci biir gaal ga moom ak soxnaam ak rabu àll yi nga xam ne moom la ko sang bu tedd moom la ko yàlla sunu borom waxoon ah mu mujj mucc téere bu sell bi dañuy wax yàlla sunu borom dañuy wax ne moom moom moo tëjal boppam buntu gaal gi ba nga xam ne kenn mënul woon a dugg ci biir donte nooyin sax ci boppam demoon na ba nga xam ne bu bëggoon ne kat danaa ubbi bunt bi am ñenn ñoo xam ne danaa leen dugal ci biir gaal gi du ko mën ndaxte yàlla sunu borom moom moo àppaloon seeni bés te moom moo tëjoon buntu gaal gi luut yàlla sunu borom feeñu ibrahima ne duma ko nëbb li ma war a def mu ñëw ci ibrahima ne ko fa sa jarbaat bi nekk kat danaa ko boom danaa boom ñépp ña fa nekk danaa boom dëkk boobu ndaxte seeni ñaawteef seeni tooñ seeni bàkkaar jéggi na dayoo yàlla sunu borom ne duma nëbb ibrahima li nga xam ne moom laa war a def bi mu ko waxee ibrahima ibrahima ñaan ko ibrahima tin ko ne ko waaw am naa foofu ab jarbaat boo xam ne kat nit ku baax la nit ku lay déggal la donte mi ngi dëkk ci biir askan boo xam ne askan gu bon la te yaa ngi layoog ñoom yàlla sunu borom ne ko may naa la nga dem wax ak sa jarbaat ne ko na génn ndaxte bu génnul ci dëkk boobu danaa ko boole itam ci ñi may mbugal ibrahima wax ak luut luut wóolu li ko nijaayam wax ndaxte gëmoon na ne li ko nijaayam wax mi ngi ko jëlee ci yàlla sunu borom kóolute gi moo doon lan moo doon mu gàddaay daw génn ci dëkk boobu bàyyi fa lépp la mu amoon bàyyi fa alalam bàyyi fa këram bàyyi fa ay yéreem bàyyi fa lépp la mu amoon wóolu yàlla moo taxoon mu mucc bu wóoluwul woon yàlla kon du mucc yàlla sunu borom di ñuy wax ne wóolu leen ma gëm leen ma te ngeen nangu pexe bi nga xam ne moom laa leen jox ngir ngeen mën a mucc yàlla sunu borom ne ubbil naa leen wala boog jox naa leen pexe boo xam ne bis bu may mbugal àdduna ndax lool dana am yàgg yàgg yàgg yàlla sunu borom dana mbugal doomu aadama yépp dana mbugal àdduna yàgg yàgg yàgg yàgg danañ taxaw ci kanamam layoog moom yàlla sunu borom nag ne bés boobu day doon bés buy bette wante bés boobu boo leen ci bëggee mucc ubbil naa leen yoonu mucc ubbil naa leen yoonu texe te yoon boobu moo di seydina isa almasi bi yeesu christ yàlla sunu borom ne misaal bi ma leen di jox mooy gaal gi nga xam ne moom laa waxoon nooyin mu yatt ko gaal googu képp koo xam ne duggoon nga ci biir da nga mucc gaal googu képp koo xam ne wóolu nga woon yàlla sunu borom ba dugg ci biir da nga mucc ndaxte amul woon benn benn pexe bu weesu gaal googu amul woon dara loo xam ne doomu aadama mënoon na ko def ba mucc lu dul dugg ci gaal googu ñi nga xam ne nag wóolu nañu woon yàlla ñi nga xam ne wóolu nañ ko woon mu doon nooyim ak njabootam ñooñu mucc nañu ndaxte bi mu waxee ak njabootam bi mu waxee ak soxnaam bi mu waxee ak ay doomam dañ ko wóolu gëm ko ànd ak moom dugg ci gaal gi ñu mucc yàlla sunu borom ne boo leen ma wóoloo ba nga xam ne jébbalu ngeen ci jëmm ju sell jooju di seydina isa almasi bi yeesu christ dana doon gaal gi nga xam ne mooy gaalu mucc te bu boobaa da ngeen bokk ci ñi nga xam ne danañ mucc ndaxte yéen a ngi ci biir gaal gi yàlla sunu borom ne sama bés day bette yàlla sunu borom ne bésam day bette yàlla sunu borom jox ñu ñaari misaal yooyu yàlla sunu borom nañu farlu leen farlu leen yàlla sunu borom nañu képp koo xam ne wóolu nga ko waxu rek gëm ko ndaxte ñi ko gëm bari nañu wante ñi ko wóolu néew nañu ñi ko wóolu néew nañu loolu moo waral doomu aadama di indi ay pexeem yàlla sunu borom ne boo leen ma gëmee wóolu ma kon loolu xewoon ci bésu nooyin xew ci bésu lóot yéen da ngeen bokk ci ñooñu nga xam ne muccoon nañu ndaxte jëmmi jamono danaa wone sama bopp kon mbokk yi yàlla bu ñu bokk ci ñooñu nga xam ne dañuy dund ba fàtte yàlla yàlla bu ñu bokk ci ñooñu nga xam ne dem nañu tey ba naagu yaakaar ne kat ñoo moom seen bakkan ñoo moom seen ruu yàlla bu yàlla bu ñu bokk ci ñooñu nga xam ne wóoluwuñu yàlla yàlla nañu bokk ci jëmm yooyu nga xam ne dañu gëm yàlla sunu borom te dañ ko wóolu yàlla ñu bokk ci jëmm yooyu nga xam ne ñi ngi déggal yàlla sunu borom te bés bu nekk ñi ngi koy pareel bés bu nekk ñi ngi koy waajal ba nga xam ne bésam boobu bu yegsee bésu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ bés boobu duñu bett ndaxte fekk nañu ñu pare yàlla nañu bokk ci ñooñu nga xam ne dañuy déggal yàlla yàlla nañu bokk ci ñooñu nga xam ne danañ dugg ci gaalam googu nga xam ne mooy gaalu mucc te gaal googu du kenn ku dul Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ yàlla nañ ko jébbal sunu bopp yàlla nañu jébbalu ci moom yàlla nañ koy déglu te yàlla nañu gëm ci sarax soosu nga xam ne def na ko ngir doomu aadama ci bant bi ba mu tuuree deretam joxe boppam mu doon sarax si nga xam ne moo far sunuy bàkkaar te deret jooju mooy malaanu kiiraay gi nga xam ne képp ku mu nekk ci sa kaw mucc nga texe nga te bésu mbugal googu bu ñëwee bés bi nga xam ne yàlla sunu borom dana wone boppam bés boobu yow da nga ci mucc ndaxte gëm nga yàlla wóolu nga yàlla te jëmm ju sell jooju moom mooy ki nga xam ne dana la aar ci bés boobu mbokki auditeurs yi ñuy sant yàlla sunu borom di ñaan yàlla na wéy di wàcce ay xéewalam yàlla na wéy di ñu barkeel te yàlla na wéy di ñu boole ci ñi nga xam ne gëm nañ ko te wóolu nañ ko yàlla nañu boole ci ñi nga xam ne bés bu nekk ñi ngi dund lépp lu ñuy wax lépp lu ñuy jëf dañuy bàyyi xel ci moom may ñaan ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ yàlla na yëwu yàlla wàcc ci seen kaw yàlla na wàcc ci ñépp ñi nga xam ne ñi ngi yeewoo fii ci biir Sénégal ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ wasalaam
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35